ñu ngi lay nuyu bu baax a baax yaa imam ah ma ne ñu ngi lay fay bu baax a baax waaw na ngeen def naka naka waa Feeling Dakar waaw ça va di la namu rek maa la raw maa ngi ziar euh, jërëjëf sa première réaction ci ki nga xam ne moo de Ousmane Sonko ginnaaw daan bi ñu ko daan tey ci euh, chambre criminelle waaw Khadim maa ngi lay nuyu di nuyu Sénégalais yi jërëjëf di am tey kàcce gu rëy rëy di am kersa parce que man yàlla daf maa boole ma bokk ci Sénégal yi bëgg réew mi. Mhm. Sénégal réew mu mag la ci ci réew mu mag la ci démbam maanaam réew mu ndaw la ci surface waaye réew mu mag la ci àdduna bi. Mhm. te bi li ñu respecté nawee ñu ko du woon am-am maanaam du alal Sénégal amul pétrole amul gaz waaye. réew mu ñu naw la ci àdduna bi li tax ñu naw ko rek mooy nit ñu intelligent lañ peuple lañ boo xam dañoo teel a jàng teel a am dignité teel a gëm moral ak éthique loolu la ñu sunu république parce que valeur yooyu république def ko fee fekk tenir ko en considération même diine sax daf fee fekk ngor fekk fi dignité kon tey bu ñu demee ba am réew ñu jàpp ko otage ñaari at ñu ni dafa am xale bu jigéen boo xam ne dafa tuumaal as gor tuumaal père de famille tuumaal ab chef de parti tuumaal ab inspecteur impôt et domaine nga xam ni ci ñu dàq jàng ci réew mi la bokk ñu ni benn jigéen moo ko tuumaal viol tuumaal ko menace de mort dossier boobu jàpp réew mi ñaari at ay bakkan rot ay nit seen alal yàqu ci ñu tëj ci ay journaliste tey ñu xëy ñu ni ñu viol amul mënaas de mort amul loolu rek gàcce gu rëy rëy la ci Sénégal ñu yaakaar ni foofu la ñuy yem ñu daal ni malgré viol amul menace de mort amul waaye dinañ ko tëj kaso. Mm-hmm. waaye dinañ fexe ba objectif bi ñu amoon ci moom ñu atteindre ko mooy mu bañ a nekk candidat. mais juge bi am na droit mu mu mu euh, coppati affaire yi nu ko nu ko sentir aussi. Xaadim damaa bëgg nga déglu moom bu dee bëgg nga ñu waxtaan. waaw dama lay fàttali aussi dama lay fàttali imam. waaw da nga may fàttali mais bu dee da ngaa bëgg ñu waxtaan. Mm-hmm. da nga may may ma wax. sama pensée su daanee léegi nga relance ma. allez-y. yaa ngi dégg dama wax ni li ñu waxoon Sénégalais yi ba nit ñi di ci dee laa wax. nit ñi di ci faatu loolu dañ ko dañ ko mooy dañ ñoo waxoon ni dafa am ku violé nit dafa am ku yor ñaari fital am koo xam ne dafa def menace de mort loolu la ñu waxoon Sénégal yi wax ko kilifa diine yi wax ko église bi wax ko peuple bi loolu la wax ni amul uh-huh. comme loolu amul nag li jaadu woon mooy Ousmane Sonko tey dañoo waroono euh, barika barricade bi ñu barricade këram ñu dindi ko mu ñibbi këram lii may wax ni jarul jàng dafa laaj logique rek nga xam logique leneen li ci topp nit mënoo ni lii nga koy toppee ba àdduna bi yëpp dégg ko nga wane ni loolu amul ba noppi nga wëlbatiku di ko toppee leneen loolu du droit loolu leneen la. non mais juge bi am na droit aussi mu mu mu requalifier les faits loolu moom ci droit a euh, imam xam nga man mi di wax ak yow. Mhm. droit jàng naa ko. Mhm. te billahi allazi la ilaha illa xam nga man bokkuma ci ñuy wax pour pour am ceeb bu ñu yóbbu seen kër man am naa ceeb kon man lépp ba ceeb ba xeex bi déparé laa ni lii ay tappale la lii complot la. dafay mhm. tey histoire jox na ma raison. man damaa am fierté tey amatuma dara lu ma naqari parce que la ma waxoon Sénégalais yi Ousmane Sonko waxoon leen ko tey juge bi dëggal na ko mooy viol amul menace de mort amul loolu moo intéressé woon Sénégalais yi leneen li nga xam ni nag. ay détails la yoo xam ne dugal nañ ko ci pour tere Ousmane Sonko mu nekk candidat man Imam Dramé engagé wu ma te ragal naa intellectuel yi conscient yëpp engagé wu leen koo xam ne da da ngay dox ci manipulation yaa ngi dégg dangay dox ci manipulation mën ngaa continuer di manipuler sa bopp di nax sa bopp waaye ñi conscient xam nañ ni lii la ñu juge bi waxoon mooy menace de mort mooy viol moom la Adji Sarr doon tuumaal Ousmane Sonko. te juge bi setal na ko ni ni ni viol amul menace de mort amul kon ñun am nañ ndam lu rëy a rëy. Ousmane Sonko même bu dee dañ koy tëj ci kaso bi dinañ ko ci tëj wane ni violé wul kenn menacé wul de mort kenn ñun lii moo ñu ci intéressé woon te yàlla ci boppam moo ñu àtteel ba lii leer sunu suñu bopp leer ci suñuy xel ak suñuy xol. li ci des nag. Mhm. li ci des nag mu des question bi ñuy posé. est-ce que le peuple sénégalais est-ce que le peuple sénégalais mérité na am njiit bu mel ni Ousmane Sonko loolu point d'interrogation la parce que peuple bu nekk li nga mérité loolu ngay am bu ñu naxante le peuple sénégalais bu fekkee ni mérité na njiit bu mel ni Ousmane ko moom moo koy wane bu fekkee ni mérité wu ko tamit ñu xam ni ñu fi nekk lañ mérité bu ñu naxante. loo bëgg a wax loolu loo bëgg a wax na xale yi génn xeex. xaadim mhm. dama bëgg nga déglu ma. waaw dama lay laaj rek oustaz. xaadim déglu ma man du ma man kilifa laa. ok bul ma waxal lu ma waxul. Mhm. dama bëgg nga ma man bu fekkee da am koy foyee wuti ko man kenn du ma foyee. oustaz allez waaw allez may mhm. wax. allez ci tontu bi yow moo tax may wax ak yow. ok bul ma waxaat baat boobu te na nga na nga retirer sa propos yooyu. faut retirer ses propos bul ma waxaat loolu man kilifa laa du ma ko ñuy foyee. man li may wax dama bëgg nga déglu ko bu dee mënu amoo da nekk ci ci pour lu neex nit nga dem wuti ko. non allez-y Oustaz bu ñu yegg foofu allez-y tontu sama laaj rek. mënoo maa woo téléphone. tontu sama laaj rek boo ko mënee tontu s'il vous plaît. déglu ko man du ma tontu déglu ma. oui man kilifa mhm. ma nit ku ñuy tal wala ku ñuy waxal lu mu waxul. Mhm. man dama dépassé responsabilité boobu ngay wax. man du ma kuy taal réew bi man du ma wax pour pour pour kenn génn di taal man sama responsabilité dépassé na loolu. ok c'est da ngay déglu ma wax ba pare man sama responsabilité dépassé la loolu man kuy taal du ma jege ku naan taal leen du ma fréquenté il faut nga déglu ma man ki kii ba diina laa yaa ngi dégg di ab imam di muqaddamu Cheikhu Tidiane mhm. man ci diina laay wax ak ci ngor ak ci éthique waxuma pour lu kenn mer wala kenn kontaan man république moo ma formé lépp lu yàq république bi man imam Dramé du ma du ma ci d'accord mhm. ngi dégg mhm. dama bëgg loolu mu leer ñun dañoo dépassé ay caaxaan. ok ñun dañoo wax ni dafa am xale bu jigéen bu violé bu xam dañ koo violé wax ko réew mi yëpp ñu jóg ni viol amul Ousmane ko génn ni dañ maa kompaloo ñenn ñi gëm ko ñenn ñi gëmuñu ko ndi yaakaaroon ne bu ñuy àttee Ousmane Sonko ci viol lañ koy àtte wala ci menace de mort loolu lañu wax ni amul tey. Mhm. loolu nag képp kuy ab sénégalais. xam nga ci déception képp kuy intellectuel xam nga ni lii tey defet la pour Sénégal dépassé na mbiru Ousmane Sonko ak affaire Pastef il faut ñu bàyyi par loo ñu wax te yàlla rek tax gëm ni ku dee di ñu ber la ku gëm ni wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati farda di nga wax dëgg ku gëm ni kenn ku ne di nga dajeeg sa borom ba mu jàpp ni yow rek la bind lu situation métti métti di nga wax dëgg ñun responsabilité la ñuy waxee dépasé nañ di wax nii pour waxandoo ñun réew mi daf ñoo taxawu am lum ñu defal réew mi am lum fu ñu féete ñu bëgg faa féete réew mi daa ngi dégg. Mhm. dama bëgg dama bëgg ñu dégloonte man ku ma xam. Mhm. xam ni samay responsabilité dama ko mus a assumer. ok man ba may wax xaw ma Ousmane Sonko Ousmane ko bi mu xewee yàggul. te bu bu continuer fi la may bàyyi ma continuer di wax man Sénégal moo tax may wax. dama wax ni li am ni gàcce la ci képp koo xam ne intellectuel nga ci képp koo xam ne africain nga ci képp koo xam ne nii Cheikh am Bamba mooy sa maam képp koo xam ne Cheikh Omar Foutiyou mooy sa maam képp koo xam Mamadou Lamine Dramé mooy sa maam tey am nga gàcce lii anti moral la ay nit faatu seen bakkan rot ñu gëmloo nit ñi voyal la ba dernière minute ñu ñuy wax xaw ma lan corruption à la jeunesse loolu damay wax ni gàcce la ci Sénégal man ci niveau bi laay wax. ok euh, léegi muy wax leneen. Mhm. leneen la muy wax moom la engage ok c'est clair man sama responsabilité dépassé na di wax naan taal leen wala bu leen taal man sama responsabilité mooy bu kenn taal. ok est-ce que waxee bu kenn taal parce que réew mi ñoo ko moom kenn waru koo taal bu fekkee da ngeen di wut ku ngeen diaboliser nañ ci génne imam Dramé imam Dramé du ko ñuy diaboliser man réew mi mooy daw ci sama deret di daw ci fii ak asamaan si daanuwul dinañ ko wax. ok euh, Imaam ci niveau boobu lañ nekk. voilà euh, beneen laaj aussi mooy est-ce que jàpp nga ne bu Ousmane Sonko demoon dañu fi nekk di requalifier les faits di xool naka lañ koy tegee ay daan yooyu. man waxtaan wi dañ koy yemale fii xaadim parce que da nga da def loo xam ne nag je suis désolé yow sama xarit nga. ja bëgguma bëgguma nga def ko xam nga imam bu fekkee bu fekkee dara daawaay kon maa ngi retiré sama ay propos c'était juste rek pour pour waaw ok ok je retire waaw non je sais xam naa affection bi man aussi am na affection ci yow aussi laaj ak tontu la moo tax ma laaj la mais. nga ma xam nga man ban genre nit laa. waaw loolu loolu loolu on reviendra léegi nañu wax ci. naan imam Dramé nañ taal loolu da nga koy retirer ba àdduna yëpp xam ne yaa ko waxoon waxatoo ko. waaw je retire mes propos je retire mes propos ah, imam léegi ñu continuer voilà léegi léegi ce que je dirais mooy euh, est-ce que Ousmane Sonko bu fekkoon te ñëw na ci bërëbu àttekaay bi quand est-ce que dinañ dem bay recalifier waat les faits naan lii lañ koy toppee wala lee lañ koy toppee. non man loolu débat juridique la du ma ci dugg. ok loolu na avocat ci wax. Uh-huh. man débat moral laay laay wax ak éthique. Uh-huh. réew mi dafa am loo xam ne réew mi d'accord ci. Uh-huh. réew mi d'accordul sosal kenn réew mi d'accordul tuumaal kenn réew mi d'accordul kompolo kenn hmm. parce que loolu ci sunu ADN la nekk Sénégal képp kuñ fi mës a tuumaal da nekk héros ci Ahmadou Bamba li ko def héros mooy dañ ko tuumaal kenn ko réew il faut ñu xam sunu taarix réew xam sunu sociologie réew tuuma yàgg na fi tuuma alalu gor la hmm. dañuy wax ni tuuma alalu gor la nattu alalu jullit la Ousmane Sonko malgré tuuma yi ñu ko tuumaal yëpp daf ko muñ en tant que père de famille tey li may wax mooy ñi doon wax ni Ousmane Sonko violeur la nañ am courage ñu génn baalu ak Ousmane Sonko. Mhm. wane ni dañoo juum parce que askor ku ko tiim ku ko ku ko jiiñ violeur te baalu la boo dee di nga dem safara loolu mooy dëkk kon bu ñu rëy nañ génn ni Ousmane Sonko ñu ngi lay baalu. ndax juge bi nee na Ousmane Sonko violé deful deful deful lu ñuy tuddee menace de mort. Mhm. le débat foofu la nekk leneen li nag ay njuuj njaaj la man loolu du ma ci sori. ok man loolu du sama responsabilité mais sama responsabilité mooy. Mhm. lañ waxoon bu njëkk. wax ko gor ñi wax ko jullit ñi bañ jàpp ko. Mhm. tey ñoom ñoo wane ni loolu amul. mooy menace de mort amul. Euh, euh, euh, viol amul. loolu laa wax ni ndam lu rëy la. ci ñi doon jàppale Ousmane Sonko. dama mhm. loolu laa doon xaar ci te déglu naa ko moo tax sama conscience dafa tranquille la ca des nag. Mhm. la ca des loolu sénégal yi ñoom ñoo xam nuñ koy doxalee. Mhm. waaye man li ma gëm di ko wax nga xam ne du sama wax yàlla la yàlla moo wax ci alxuraan ni Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. peuple boo gis. ñoom ñooy taxaw pour soppi seeni i dund waaye yàlla lépp loo man du la ko defal yaa ngi dégg. réew mi tuuma. Mhm. ak kompaloo yàgg na fi. waaye ñi ñu mus a kompaloo ñëpp dañoo mus a am ndam Ousmane Sonko kompaloo bi toj na. wane nañ ni violé wul. Mhm. menacé wul de mort. loolu mooy ndam li nga xam ne man jàpp naa ko ci moom. leneen li nag. Mhm. ay caataan la du ma ci dugg. ok ñu jeexalee ko rek ak la réaction de maître El Hadj Diouf di avocat wu soxna Adji Raby Sarr bu mu génnee tey mel na ku ku mel daal dafa am déception ci par rapport ak procès bi. s'il vous plaît tur woowu du ma ko tudd kooku du ma tudd du ma tudd turam waxal leneen. kon jërëjëf Imaam ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax. maa ngi lay gërëm di la sant. Eh, jërëjëf waaye nag neen Imaam Dramé moom bokkul ci ñiy taal. c'est leer na. moom moom responsabilité am dépassé na loolu. Mhm. responsabilité am mooy bu gisee ay fen ni lii ay fen la. Mhm. bu gisee dëgg ni lii dëgg la. waaw waxal loolu réew mi ñu dégg ko. jërëjëf merci beaucoup imam jërëjëf merci jërëjëf merci